أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أنيسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مسات السياتين وأعوذ بك رب أن يحضرون mbokki jullit yi nuyu nañu leen siyaare nañu leen ginnaaw bi ñu jiitalee sant borom bi subhanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam delu ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa borom bi subhanahu wa taala yàggal ko lool te wéral ko ba yéenim ci diine lislaam borom bi subhanahu wa taala jàppale ko ba mu defe ko nu kawe njortam te ànd koog njabootug l'islam ba koy dellu nuyooti leen ci weeru màgg bu tedd bi ñu nekk muy weeru koor di ñaan borom bi lépp lu ñu ci jaamu borom bi subhanahu wa taala ñu ko ndokkeel leen ci bis bii di laylatul xadar di alxames ñaar fukkeelu fan ci weeru koor war a doon guddig ñaar fukkeel ga ak benn ñuy ñaan borom bi subhaanahu wa taala lépp lu ñu ci jaamu ci laylatul xadar gi yàlla nañu ko borom bi subhaanahu wa taala nangul guddi gi nag guddi la goo xam ne bu yegsee jullit bi war na cee profité yokk ay jéegoom ci digganteem ak boromam ci ñaan ci tuub ci toroxlu waaye julli ci bi alayhi salaatu wasalaam julli la goo xam ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko barkeel ndax moo ne inaa ansalnaahu fii laylatin mubarak kon guddi la ñu barkeel barkeel googu borom bi subhanahu wa taala barkeel guddi gi tax na mu wàccee ca alquranul karim ba mu ñëw ca asamaawu juróom-ñaareel ba loolu mu mel ne message bu am solo la boo xam ne jullit bu nekk war na cee déggee ne kon guddi gi guddi la goo xam ne moo gën junni guddi comme ni ko alquranul karim waxee waaye nekkati ci weer woo xam ne moo gën junni weer di weeru ramadan di weer woo xam ne bu ñëwee jullit ba di ci war a profitoo war cee yokk ay jéegoom war cee yokk pas-pasam digganteem ak boroomam kon guddi gi noonu rek la ko jullit bi war di doxee moo tax Seexul Xadim wax na ci lu am solo loo xam ne jullit bu nekk war na ko bàyyi xel ci njariñu guddi gi ak guddi gi ni mu baree ay ngëneel yu feeñ guddi gi ni mu baree ay ngëneel yu nëbbu guddi gi ni mu baree ay ngëneel yu kawe ngëneel yoo xam ne daj na kapp àdduna ngëneel yoo xam ne na dell jamono ndax Seexul Xadim wax na ca xasidaam gu ne alhamdulillahi mu jibi sil xadar man xasanaa fadlan bi laylatil xadar kon loolu li mu tekk mooy ngëneelul tu xadar kon mbokk yi guddi gi nag bu yegsee nañu ci yokk pësseef ak jaamu yàlla moo tax saydatuna Aysa mas na laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekko ko yow yaa rasulullah yonent bi yàlla bi guddi gi bu yegsee ban taxawaay moo ci gën mooy yan ñaan lañu ci war di gën a yokk suñuy jéego ngir mën a gën a dajeeg yërmande borom bi subhaanahu wa taala yonente ba alayhi salaatu wasalaam wax sayyidatuna Aysa ne ko guddi gi bu yegsee deel def allahuma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni allahuma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni mu ne boo ko dee def de borom bi subhaanahu wa taala dina la jéggal te dana la tabaxal ay kër ci àjjana kon guddi gu am solo la mbokk yi tey alxames ñaar fukkeelu fan ci weeru koor dëppoog fukki fan ak ñeent ci weeru mai atum 2020 ngeen di ñu baaxoo di topp ci site bii di suñu info point net ñu cay waxtaane njëriñal lixlaas mbokk bi yow mi ngi déglu foo ma mën a dégloo ci réew mi ak tim réew ñu fas yéene ànd ak yéen ci njëriñ lu am solo loo xam ne jullit bu góor bi ak bu jigéen bi war nañu ko yittewoo loolu mooy lan li nga xam ne alxuraan arab moom la wax naan awraaxu safar mooy yow mi nga xam ne da ngaa nekk cim réew te bëgg a dem ci beneen réew wala yow mi nekk ci beneen réew te bëgg ñibbi sam réew te loolu lépp nga gis ci ay gàllankoor nga ne nga bëgg suñ borom subhanahu wa a tàggatal la ñi nga xam ne ñoom ngay dagaan mbir moomu ba ngay soxla ci ñoom yomb loolu mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci ambassade yi wala ñoo nekk ci consulat yi nga xam ne si ne ñoom ngay dagaan këyit woo mën a jugee fii ci réew mi dem bitim réew wala moom ngay dagaane kayit woo xam ne fa ngay jugee ca bitim réew ñibbi sam réew mu ne boo ko bëggee def nag defal téeméeri lixlaas ak ñeent fukk ñeent loolu mooy cent quarante quatre fois lixlaas téeméeri lixlaas ak ñeent fukk ak ñeent cent quarante fois quatre fois lixlaas ngay tari boo ko taree nga tafli ko ci passeport bu dee ko am passeport la mu ne boo ko defee de borom bi subhanahu wa taala dina la wambatal euh, sa bëgg-bëgg googi mu dëppoog euh, dogalu borom bi subhanahu wa taala ba loolee yomb la mu ne ba dee da nekk fii ci Sénégal wala meneen réew mu mën di doon nga bëgg a dem bitim réew mu ne boo amee passeport daa di jël bi tiim ko kari ca téeméeri lixlaas ak ñeent fukk ak ñeent cent quarante quatre voix lixlaas tafli ko ca passeport ba ca pa paasu ñetteel ba mooy foo jógee fi nga xam ne saw foto foofu la nekk da nga naan benn ñaar ñett ba ko ñetteelu paas ba fa ngay tafli li nga xam ne si ne doon nga ko jàng ci lixlaas mu ne bu fekkante ne amagoo passeport it mën nga koo def sa carte d'identité nga tari ko tafli ko ci paas bi nga xam ne sa nataal muy sa foto foofu la nekk mu ne boo ko defee de borom bi subhanahu wa taala dina la jàppale dina la yombalal loolu ba mbir moomu yomb ci yow lool kon ñi nga xam ne ñooy bëgg a dem immigré yi lii njariñ la loo xam ne ñoom la yitteel ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew it bëgg a ñibbisi lii njariñ la loo xam ne yitteel na leen jërë ngeen jëf ñu bàyyi li nag site bii di Sunuinfo point net ñu traital leen waxtaan wi di leen dem leen ci Facebook bi bu ngeen ñu fa demee fekk ñu fa YouTube Instagram jërë ngeen jëf ñu bàyyi li nag programme bi nga xam ne su Sunuinfo point net ñu ngi koy amal ci guddik Laylatul Qadr di ñaan borom bi subhaanahu wa taala lépp lu ñu ci